bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi ndokkeel ñépp ñu ngi ndokkeel ñëpp. ci nga xam ne mu ngi lem ay bagaasam di dem. ci weeri koor wii nga xam ne mu ngi lem ay bagaasam di dem. ndax tey lañ ñaar fukki fan. mag ñi nag daan nañu ne. mag ñi nag daan nañu wax ne. wala bàyyi sax daan na wax ne. wala bàyyi sax daan na wax ne. weeru koor wi demee itam barkeem yàlla na des ak ñun. ne weeri koor wi demee itam barkeem yàlla na des ak ñun yaara bi. yàlla na barkeem des ñun. na barkeem des ak ñun yaara bi. yàlla na barkeem yëkkatil ñu fitna gu bi nekk ci bi lépp. yàlla na barkeem yëkkatil ñu fitna gu gi nekk ci àddina bi yépp yaara bi. nga xam ne bett na képp kuy nit di doomi aadama. waaye yàlla nag moo moom ay jaamam moo moom mbiram itam nu mu ko neexee rek noonu la koy tëralee wax na ne moom moom mbindee wax na ne moom moom mbindee fi moom moom nit ñi itam. kon mbir mi ko kon mbir mi yàlla moo ñu ko teg. dana ko teggi waxtu ci waxtu ko soobee. waaye ñu ngi koy ñaan yal na ko gaawal yaa rabbi yal na ñu dimbale te yàlla bum ñu xaar sonn ba ñu sonn yaa rabbi yàlla bu mu xaar bañ sonn mu door ñoo dimbale yal na ko yàlla yëkkati ndax mbir la mu métti métti na ci diine métti na ci àddina métti na ci aada yi yépp ndax mbir moo xam ne dafay handi moytu wante. ci anam yëpp. ci anam yëpp. loolu ñun miinuñ loolu. loolu ñun miinuñ loolu. li ñu miin mooy jaxasoo ci jàmm. nekk ci jàmm. nekk ci jàmm. bu ñuy jaamu yàlla itam di ko jaamu yàlla ci xel mu dal. di ko jaamu ci xel mu dal ak jàmm. yal nañu yàlla delloo si loolu yaara bi. te lu mel nii bu demee yàlla bu ñu ko gisati mukk wala yàlla bu mu xamati mukk te buñ koy fàttaleku it yàlla buñ ci am fàttaleku bu ñu naqadi loolu yépp yomb na yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal yaara bi comme moom nag daf ñoo bett ba indi jafe-jafe yii nga xam ne moo am kon ñu ngi ci xéewal sax ba tey. ndax ñu ngi nii toog ci jumaa ji. te mënoon naa gën a jafe. mënoon naa jafe ba nit ñi sax danañ leen aaye ne bëccëg sax dootu leen ko génn. dootu leen génn bëccëg dootu leen génn guddi. am na réew yu ci àgg. kuy wax rek. moo tax kuy wax rek. da ngaa xamut loolu. xamut loolu. waaye ku xam loolu. waaye ku xam loolu. da dox ndànk wax ndànk. da ba mbir mi jàll ci jàmm. yàlla bu ñu yàlla teg fitna yooyu nga xam ne ñu ngi koy dégg ci feneen. yooyu nga xam ne ñu ngi koy dégg ci feneen yaara bi. yàlla bu mu buñ ci xag yàlla bu mu xag senegal yàlla yal na ci aalamul islaam yëpp mucc yaara bi yal na ci doomi aadama yëpp mucc sax ndax maam El Hadj Abdoulaye dafa wax ne. xay fii yaa ngi koy dégg rek léegi yaa koy dégg rek yow muccaguloo ci. yàlla na dem jeex ci ñëpp. yàlla na dem jeex ci ñëpp. te yàlla bu mu fi bàyyi benn jeexital boo xam ne daf ñuy yàlla bu mu fi bàyyi benn jeexital boo xam ne daf ñuy naqadi. ci kaw loolu nag. ci kaw loolu nag. yàlla ubbi na buntu pour ñu mën a dajaat ci yàlla ubbi na buntu pour ñu mën a mën a dajaat ci jumaa ji di ko jaamu. comme ni ñu ko doon jaamoo ci kër yi rek yàlla moom moom lépp moom moom jumaa ji moom moom kër yi ñiy wax di fasale seen ñàkk àgg ci yàlla rek moo ko waral. ñiy wax di fasale seen ñàkk àgg ci yàlla rek moo ko waral. alxarakaatu sakanaatu kulluha lillah waaw ne lii li dal yëpp yàllaa ko moom. waaye bu ñu xamoon ne lii lii yëngatoog li dal yëpp yàllaa ko moom. kër yi ni moomee jumaa ji. moo moom kër yi ni moomee jumaa ji. kon seen wax danañ ko gàttal lool. kon seen wax danañ ko gàttal lool. waaye wax joo xam ne boo ko waxee rek ñu xam ne jànguloo. rek ñu xam ne jànguloo. gàcce rek ngay indil sa bopp. gàcce rek sa bopp. nañ jéem a régler suñu bopp. nañ a régler suñu bopp. xam ne teggin mooy eggale nit ca fa mu àgg. xale yi nañ xam ne teggin mooy àggale nit ca fa mu war a àgg. boo ñàkkee teggin. boo ñàkkee teggin. kenn du mën a baaxal sa mbir. kenn du mën a baaxal sa mbir. te li wéy wéy na rek. te li wéy wéy na rek moom. def wala nga wax ko wéy rek. ñàkk teggin boo def wala nga wax ko wéy na rek. Baay daan na wax ne. Baay daan na wax ne. jaam bi lu ñaaw lu mu def. jaam bi lu ñaaw lu mu def. bu yàlla defee mbaaxam sax ne baal na ko. mu ne bu yàlla defee mbaaxam sax ne baal na ko. fekk na rek jekk. fekk na xas na ñaaw rek. ba pare même bu ñu ko baalee bu ñu ko baalee rek. sibli yu mu wax loolu naan waa saw ata wa in xufirat ne ñaaw na jeeg di yàlla baal na ma. yu moo doon wax ne ñaaw na jeeg ngi la yàlla baal na ma. loo xam ne def nga ko mu naqari yàlla. waaye loo xam ne def nga ko mu naqari yàlla. rek. waxtu woo ko fàttalikoo rek. da nga yedd sa bopp. kon nañ jéem a nekk ay nit. nañ jéem a nekk ay nit. nañu roy ci yonent yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam. xam ne itam ñoo méngoo adduna bi di ñu ko doxalal. ñi nga xam ne itam ñoo méngoo adduna bi di ko doxalal. lépp lépp lu ñu wax ne lii mooy musal nit ñi nañ topp ci loolu. ndax yonent bi indilut ñu diine ji pour mbugal ju. indilu indilu ñu ko itam ngir fitnaal ñu. yombal na ci yombal yu bëree bëri. yombal na ci yombal yu bëree bëri. léegi rek ci hadis bi ñuy jàng. yuridillahu bikumul yusra yàlla dafa jublu ci yéen yombalal leen waaye jubluwul ci yéen jafelal leen. yàlla dafa jublu ci ñoom yombalal leen waaye jubluwul ci ñoom jafelal leen. bégal leen nit ñi te bañ leen a dàq. bégal leen nit ñi te bañ leen a dàq. na ngeen leen yombalal itam te bañ koo jafeel ci ñoom. na leen a yombalal itam te bañ koo jafeel ci ñoom. naafila gi. naafila gi. léegi ci jumaa ji lañ koy defee. ci jumaa ji lañ koy defee léegi. waaye ba tey. waaye ba tey. am na condition. am na condition am na ñoo xam ne ñoom lañ teg ci buntu yi. am na ñoo xam ne ñoom lañ teg ci buntu yi. ñuy régler ñi xam ne war a dugg. ñuy régler ñi nga xam ne ñoo war a duggu suñ duggee ba nga xam ne li ñu am. suñ duggee ba nga xam ne li ñu am. mat na mat na. ñi ci des ñi ci des waaye nañ dellu naafila ji ci seen kër yi wala ñu naafila ji feneen. naafila ci jamono yonent bi nit ñi seen kër yi rek lañ ko doon defee. naafila ci jamono yonent bi nit ñi ci seen kër yi rek lañ ko doon defee. ba ci jamono Seydina Omar Ibn Khattab. ba ci ba ci jamono Seydina Omar Ibn Khattab. Seydina Omar moo génn guddi gis nit ñi ku nekk def jugu-jugu di moo génn gis nit ñi def jugu-jugu ku nekk di naafila sa naafila bopp. mu ne lii leen dajale woon. mu ne lii de ku leen dajale woon. ci jumaa ji benn ilimaan jiite leen. benn ilimaan jiite leen. dana nekk bidaa bu rafet. dana nekk bidaa bu rafet. amirul muminina la waaye yëfam yooyu sax bidaa bu rafet rek la ko tuddee. amirul la waaye loolu yëfam yooyu bidaa la ko tuddee. kon ku def loolu am nga naafi kon ku def loolu am nga naafi la. ku li nga xam ne itam moom la fi yonent bi bàyyi woon am nga naafi li nga xam ne itam moom la fi yonent bi bàyyi woon am nga naafi la. bi na. bunt bi yaatu na. bul wax ne man baax la naa keneen du baax le. bul wax ne man baax la naa keneen du baax le. dafa am kenn ci dafa ma soxla yonent ne ko yàlla na ma yàlla yërëm ma ak bu yàlla yërëm keneen gannaaw bu mu yërëmee am kenn ci saxaaba yi ku wax ne yàlla na ma. yonent bi ko wax. yón dafa wax yonent bi ne ko yal na ma yàlla yërëm mag ak te yàlla bu yàlla yërëm keneen. suñ gannaaw man ak yow. suñ gannaaw man ak yow. yonent bi ne ko xatal nga lu yaatu. bi ne ko xatal nga lu yaatu. yàlla gën naa yaatu loolu. yàlla gën naa yaatu loolu. mën na maa yërëm maa ak yërëm ñi des ñëpp. te du ko wàññi dara du la wàññi dara yow. mën na ñi des ñëpp te du ko wàññi dara du du ñu wàññi dara maa ak yow mii. kon mbir yooyu mbir yi nañ ko jàppee noonu rek. kon mbir yi nañ ko jàppee noonu rek. yaa ngay añ ci sa kër. yaa ngay añ sa kër. keneen a ngi añ ci a ngi añ ci këram. ku ci mën a tere kenn. kon nañ oyofal wax yi. kon nañ oyofal wax yi. ndax bu ëllëgee ñu mën koo lay. ndax bu ëllëgee ñu mën koo lay. ku ko layut fii itam da nga ko lay ci kanam yàlla. ndax ku ko layut fii itam di nga ko lay ci kanam yàlla. te boobu dafa métti. te boobu dafa métti. nañ oyofal wax yi. nañu oyofal wax yi. ngir ëllëg ngir ëllëg. nañ def li nga xam ne moom la kilifa yi wax. nañ def li nga xam ne moom la kilifa yi wax. ñii di wax duut na ñoo ñuy xamal suñ diina nan lañ koy defee. duut na ñoo ñuy xamal suñ diina nan lañ koy defee. waaye nag waxtu wu nekk am nañ droit ñëw wax ñu àddina bi fi mu ak yëf yi fi mu toll ak naka lañ war a def. waaye nag waxtu wu nekk am nañ droit ñëw wax ñu àddina bi fi mu toll ak yëf yi fi mu toll ak naka lañ war a defee. ca njëlbeen ba tey. ca njëlbeen ba tey. ñëw nañ fii président yónni leen ñu ànd maak ñoom dem ci xalifa bi. ñëw nañ fii président yónni leen ñu ànd ñoog imam dem ci xalifa bi gouverneur Kaolack bii ak Serigne Mbaye Thiam ministre. muy gouverneur Kaolack bii ak Serigne Mbaye Thiam ministre. ñu tëral li nga xam ne foofu lañ ko tëralee. ñu tëral li nga xam ne foofa lañ ko tëralee. ah boo amee yow ak sa njàmbaar. boo amee nag yow sëg fetteerlu ak sa njàmbaar. bay wane na yow faale woo loolu. bay yow faale woo demal ci ñi feebar rek nga tëdd ci seen biir moo gën a gaaw. waaw moo gën demal rek. demal ci ñi feebar nga tëdd ci seen biir rek moo gën a gaaw. lu la dal itam nga xemale ko fa ngir yàlla te bañ fee ñëw diñu ko wàll si buxante suñ jumaa yi di buuxante ci suñ jumaa yi di buuxante ci te njëkkee wax ji kenn mosu la fee gis. wax ji kenn mosu la fee gis. di wax ci jumaa te kenn du la fi gis. di wax ci jumaa te yow sa junne mos dem ci jumaa ji. di wax ci jumaa te yow dem ci jumaa ji. waaye buñ la suturaalee noppil suturaal sa bopp. waaye buñ la suturaalee noppil suturaal sa bopp. moo gën moo te du tere itam li kilifa yi bëgg rek mooy am. te du tere itam li kilifa yi bëgg rek mooy am. kilifa diine yi liñ bëgg mooy am. bu ñu waxtaanee nguur gi ba nga xam ne li ñu wax dara nekku itam moom la ñuy wéyal. gënuñ leen a bëgg yàlla. gënuñ leen a bëgg yàlla. gënuñ leen bëgg yonent bi. gënuñ leen a bëgg jumaa yi. gënuñ leen a bëgg jumaa yi. waaye nag. waaye nag. wér gi yaram. wér yaram. moom la jiital ci wér gi diine. moom la ñuy jiital ci wér ak diine. na yaram yi wér su yaram amut. na yaram wérut. na yaram yi wér su yaram wérut. diine jaamu yàlla du mën a am. jaamu yàlla du mën a am. nañ wéral suñ bopp. nañ bopp. ñi nga xam ne itam ñoom lañ taxawal ci buntu yi. ñi nga xam ne itam ñoom lañ taxawal ci bunt yi. taxawaluñ fa seen bopp. taxaw leen nañ fa seen bopp. ay ndigal lañ fa taxawee danañ amee seen bat ñoom ñëpp. ay ndigal lañ fa taxawee danañ amee seen bat wax ne fii nii la tëddee toppal loolu. ku ñu moo xam ci naafila gi la. moo xam ci moo xam ci ajuma ji suba. moo xam ci ajuma ji suba. waaye nag duñ nangu. waaye nag duñ nangu. nit koo xam ne yaa nga koo xam ne yow yaa nga fële. nekk ci sa bopp ni la neexee. nekk ci sa bopp la neexee. bu ëllëgee ci ajuma ji ngay ñëw di buuxanteeg waa jumaa ji fii di leen xatal. bu ëllëgee ci ajuma ji ngay ñëw fii di buuxanteeg waa jumaa ji di leen xatal. wax nga ne sa yoon nekku ci wax nga sa yoon nekku ci duñu ko nangu fii képp ku ko fi jéem a def képp ku ko fi jéem a def lu la ci dal yaa ko teg sa bopp a wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf